ni moo fee xew fii tey ci New York City pour wan leen ni gis ngeen Free Ousmane gara pour wane ni li euh, liñ ko jiiñ dara amu ci ndax yaakaar naa ni bu doon terroriste terroriste du am lii yaakaar naa lool sénégal yi ñi génn am na ñu nekk fii ci yi am na ñu nekk ci biir so tey ñi ngi fii ci Very Street pour support our brother yàlla yàlla defal ko jàmm mu delluwaat ci njabootam so everybody come on and support and join the the the winning team thank you macha allah ngeen toute cette magnification bi nga xam ne sénégalais yi def nañu ko ñëpp génn nañu pour wane ni Ousmane Tounkara is not a terrorist waaye you know cause yaakaar naa ni terroriste du am lii terroriste say mbokk nii duñu génn sénégalais yi duñu génn so yaa gis ngeen gis ngeen Rokhaya ñoom <laughs> gis ngeen de gaaw tuddee yi génn sax tey mooy problème bi sénégalais yi génn. 2000 ba léegi. sénégalais yi génn ñi nga gis fii. mooy senegal yi ëpp fulla ci dëkk bi. ëpp gëm ci dëkk bi. nekk ay nit ñu yiw ñoo génn tey. ndeysaan dëgg la donc man ñooñu laa gis tey. ndeysaan ndeysaan ñu ngi ba léegi. ndeysaan am nañ ñu mu demee. Mhm. Ah? lii moo xew de. des jeunes tués. lii la ñuy bañ ku ko wax. waaw mais dinañ ko wax parce que ñëpp génn nañ nag léegi. Mhm. ñëpp génn nañ ñëpp génn nañ. ndeysaan ñu doon noppi ñëpp noppeetu bi ñëppay wax. ñun ñëppay jóg pour lan. pour lan pour lan defuñu ko pour dañ ko def pour suñ doom yi ñëw ëllëg. Mhm. lii dafay jeex. dafay jeex de lii wala ci naa day jeex. day jeex de. yaakaar naa terroriste ah, jeex. na fi. de. li ngeen yaakaar naa ni terroriste du am lii de dem nañ ba yaay daara ñëw na ndeysaan ndeysaan yaay daara ziar naa la nuyu naa la ni nañ la baax a baax kontaan nañ de yaakaar nañ terroriste du am lii de waaye sénégalais yee ngi jóge fu nekk di ñëw ñi ñee ngi ci biir ñi ñee ngi fépp ndeysaan gis ngeen ñëpp génn nañ yaakaar naa ni terroriste du am lii you know avocat bi moo war a wax nii avocat wu Ousmane xool leen sénégalais yi maire yi xale ndaw yi salli ah, ah. yaakaar naa nañ terroriste du am lii sorry sir sorry yeah gis ngeen avocat bi moo war uh, a wax nii voilà l' avocat de Ousmane Tounkara persecuted because of his political activism. Uh, together as a community that you come out, and make it known that it's dangerous for him to go back to uh, Senegal, and that he is on the. Yeah.

delloo ko Sénégal. Right back to Senegal because he's not. We don't want to hear that. He's not allowed to remain in the United States. parce que nee na léegi ñoom permettre ñu ko pour mu toog Amérique. so it's our job. nee na moom léegi suñu liggéey la. to prove that he's eligible to remain in the United States. maanaam ay preuve ne ko moom war dafa war a toog ci réew réew mi. right because he he would he would face danger if he were returned to Senegal. nee na il faut que ñu xam ne bu Ousmane delloo Sénégal dafa nar a nekk en danger. absolument. it's clear. yes. nee na c'est loolu lu leer. nee na loolu leer na ni que Ousmane njiit la. nee na he's opposed. nee na moom ay lépp lu muy def. the Senegalese government. Senegalese gouvernement bi. ñu ngi koy teg ba. right it's our job. yes. Ah, da ngeen bind lettre. explain it. expliquer. why nothing. lan ngeen xalaat ci Ousmane ak situation. ku nekk sa expérience bi nga am ci moom. mbir boobu tamit ñu leeral ci ne mu dem tas bu demee mën nañ ko mën na nekk ci danger. dëgg la parce que dafa ñaaw. parce que ñun ñëpp ñu ñuy wax ci Facebook bi on est tous en danger. waaw léegi moom kan mooy Ousmane lan ngeen xam ci Ousmane. wax rek dem nee